أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu bala ñuy dugg ci darsu tey xam ngeen ne tey ñu ngi waroon am buluuxul maraam waaye xam ngeen ne dafa am gan gu nekk sunu kanam gu nu dëgmal ñu bëgg def laltaay ci waxtaane ko balaa muy teew mooy kayfa naishu ramadan naka la ñuy def ba mën a dund weeru koor ñu bare bari ci jullit yi dañuy fekke weeru koor am ci ñoo xam ne danañ ko woor gunge bëccëg yi guddi yi waaye duñu jëriñu lu tax ndax xamuñu naka la ñuy dundee weeru koor moo tax laaj bi taxaw sunu kanam ne kayfa naishu ramadan naka la ñuy dundee weeru koor mu ne fa haa huwa shahru ramadan qad azallana wa hariyun bina ayuha al ahibba an naarif li hadha dayf qadrah fa nunazziluhu manzilata mbokk yi mu ne yàlla na ci ñun ñu xam dayoy weeru koor ñu xam dayo bi ban importance la am ban gëdd la am ban dayo la ko yàlla jox te mu ne lu le lu yell ci ñun la dëgg-dëgg ñu xam gan gu màgg googu gan gu rëy googu dayoom tey kenn ci ñun su doon am gan gu rëy gan gu màgg li kenn dul weddi mooy gan googu di nga ko waaj léeg-léeg sax nga gis nit koo xam ne ci gan gi màgg gi mu màgg ci moom dana changé ay meuble lu néegam dana pentiraat kër gi pentiraat saal bi rafetal fi muy dalal gan gi walla kon dina jaadu su fekkee tey ñu ngi ci ay bëccëgu saabaan saabaan di tàggoo weeru koor daanaka ñu ne ay fan moo ci des yu gàtt yu néew ay waxtu kon dina jaadu bala ñu ciy dugg ñu waxtaane gan gu màgg gi dayoom pour nit ñi xam gëdd giñ ko war a jox ak wàccuwaayam bi ko yàlla tabaraka wa taala wàccee mbokk yi wa min xasaisi hada sahri alazim bokk na ci ay jagle yu yàlla jagleel weer wii anna siyaam ahadu arkaani alislaam alxams pour ñu xam jagle yàlla jagleel weeru koor tomb bi ci njëkk mooy weeru koor benn keno la ci kenoy ponk lislaam ponk lislaam ñaata la juróom weeru koor benn ponk la ci keno yi li tax lislaam taxaw weeru koor da cee bokk kon ki bëgg a dundal weer wi na xam ne kon lislaam lay dundal ndax lu tax lislaam lay dundal mooy benn ci benn ci keno yi moom la bëgg a taxawal mu ne ñu xam ne laa yaqumu lislaam illa biha islaam du taxaw lu dul ci keno yooyu su ma leen jox ndox misaal dama leen di jox misaal rek ci oto boo am ñeenti tànk ku la mayoon benn oto boo xamante ne ñeenti tànk la am mu dindi benn tànk bi ne la yóbbu ko est-ce que dina dem lu tax du dem ah dana jafee yóbbu du mooy du dem rek lislaam ku ko bëgg a dundal foog nga taxawal keno yi keno yooyu di juróom ginnaaw seede na yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni taxawal julli rek weeru koor moo ciy tegu kon soo bëggee taxawal lislaam foog nga woor weeru koor jëleen nañ ci ibnu omar yàlla gërëm na ko mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent bi nee na buniyal islaam ala xamsin shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaai zaka wa xajjul bayt wa sawmi ramadan ibnu omar nettali nañu xadis boo xam ne mu nga ca buxaari ak muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne kenoy lislaam juróom la bi ci njëkk mooy seede na yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni taxawal julli juróom weer wooru koor joxe azaka aji màkka waaye woor weeru koor ñaareel bi ci xasa isu ramadan fi chahri ramadan baasa allahu muhammadan bi risalati alislam ila nnaasi kaffa mbokk yi pour ñu xam ne l'islam dafa am weeru koor dafa am importance mooy ci weeru koor la yàlla yónni yonentu yàlla muhammad ci weeru koor la yàlla yónni muhammad ci bëccëgu weeru koor la yàlla tànn yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu nekk ndaw mu yónni ko ci jullit yi ci mboolem mbindeef yi la naa si kaafa kon bëccëg yoo xam ne dafa ànd ak seeni guddi weer woo xam ne ci la yàlla tànn yonent yàlla muhammad kon weer woowu màgg na moom mooy weeru koor ñetteel ci xasaa isu ramadan mooy wa fiihi nuzila alquranu alkarim kama qala jalla wa ala shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan bokk na ci ngëneel yi weeru koor laq ci la yàlla wàcce alquran bi ci yàlla yónnee yonent bi xéewal la waaye ci la yàlla wàcc alquranul karim muy téere bu màgg bi borom bi wax ko ne weeru koor bi nga xam ne ci la yàlla wàcce quran mu nekk njub ñeel nit ñi waaye mu nekk lay woo xam ne dafa weex tàll di tàqale dëgg ak caaxaan waaye di nekk weer woo xam ne ci la yàlla wàcc alquranul karim ñeenteel ci ngëneelu weeru koor wa fiihi yudaafu llahu alxasanat wa yurfau darajat kama ashaara annabi sallallahu alayhi wa sallam fi zikri fadaili ramadan قال من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فريدة فيه كان كمن أدى سبعين فريدا فيما سواه mbokk yi bokk na ci ngëneelu weeru koor yàlla day doublé tiyaaba yi maanaam kon loolu gars yi di bëri di wax rek mooy weeru koor weeru promotion la comme boo jëndee crédit 1000 francs nga am nga am ñaata 2000 wala yenn saa yi bu ñu waxee 100 pour cent nga am 2000 francs weeru koor loolu la yàlla da ciy double tiyaaba yi waaye yàlla da ciy yëkkati daraja nee na sax na jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne képp ku ci jaamu yàlla ci benn xeet ci xeetu yiw yi yaa ngi mel ne ku joxe farata maanaam soo ci defee lu baax ci naafila yaa ngi mel ne ku joxe farata soo ci joxee farata yaa ngi mel ne ku def juróom ñaar fukki farata boo ci joxee benn farata yaa ngi mel ne ku joxe juróom ñaar fukki farata misaal mooy boo ci jullee benn waxtu suba nga julli wala tisbaar wala takusaan wala timis wala gee bu fekkee ne suba la suba googu lan lañ lay fay ci tiyaaba juróom-ñaar fukki tiyaaba lañ lay bindal nga mel ne ku julli juróom-ñaar fukki waxtu ci suba sabain kaman adda sabaina farida allahu akbar kon ki dëkke loolu ba weer wi jeex lu mu war a am mbokk yi ah buñ leen a woon boo jëndee 1000 francs crédit ñu doublé la ko sabain soixante-dix fois dina bëri de allahu akbar léegi nag xoolal ndeke weeru koor ni mu amee ni mu amee importance soo ci defee benn xis la comme nga tudd ci yàlla toog rek def zikr zikr boobu dañ koy yóbbu farata bu rekkee farata la farata boobu ñu double ko juróom-ñaar fukki yoon dëgg-dëgg kon li yonente bi saa salaam ne raxima an fun raxima an fun waay waay kii alku waay waay waay kii alku waay waay waay kii alku saxaaba yi ne ko kan mu ne ku fekk weeru koor te yàlla jéggalu ko wax dëgg yàlla kooku alku na kon dëgg la bokk na ci ngëneelu weeru koor juróomeel mooy inna ramadan mukaffirun lima baynahu wa bayna ramadan al axar min az-zunub boo wooree weeru koor bi yàlla nangul la ko yàlla da lay jéggal bàkkaar ramadan bi ak ramadan bi ñëw diggante ñaari ramadan yi yàlla da lay jéggal say bàkkaar allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax loolu ci hadis muslim mu ne assalawaatul xams wal jumaa ila al jumaa wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima baynahunna iza jtunibatil kabair yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na weer ju julli juróom suba ba gee assalawaatul xams julli juróom day dindi bàkkaar ajjuma ba ajjuma day dindi bàkkaar ramadan ba ramadan day dindi bàkkaar yan bàkkaar yu ndaw yi soo moytoo yu ngand yi yu ndaw yi lii daf koy dindi waa kon dëgg-dëgg suñ doon laaj benn laaj mooy ndax jullit war na am bàkkaar lan mooy tontu bi jullit ndax war na am bàkkaar kuy tontu ah warul am bàkkaar lu tax da kaa war a moytu yow jullit war na am bàkkaar yow warul am lu tax yow war na am mais day tuub yow war na am jullit war na am bàkkaar lu tax parce que yii ñoo ko war ñoo koy dindi kon waru fi nekk maanaam mu ngi mel ne waroo tilim ndax foo tilimee sangu ndox ma ak saabu baa ngi nii loo tilim tilim rek boo ñëwee sangu rek daal di setaat normalaat xoole ñu ne la julli juróom assalawaatul xams day dindi ay bàkkaar su la salawaatul xams mënalul dara nga ne xaaral ma xaar àjjuma àjjuma ñëw war a dindi bàkkaar yi su ci àjjuma mënul dara nga koje weeru koor su la weeru koor mënul dara nag pare nga pare nga fekkee yii kenn mënul la dara ah sëñ bi ku ndox mënulul dara nga wëri saabu mënu ci dara nga jël eau de Javel def ci mënulul la dara fooy sete nga too set allahu akbar juróom-benneel ci ngëneelu koor min xasaa'is as-sawm as-sawm as-sawm sabab li takfir az-zunub قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة حديث بن بقي رواه بخاري ومسلم يننتي عليه الصلاة والسلام نينا julli koor day dindi ay bàkkaar ñu ne ko naka la koy dindee mu ne fitnatu rajuli fi ahlihi fitna yi ngay dund ci sa kër sa njaboot sa soxna say doom sa alal say dëkkandoo mu ne tukaffiruha as-salaa julli mooy dindi loolu lan moo koy dindi koor mooy dindi loolu lan moo koy dindi sarax mooy dindi loolu ndeke tolof tolof manqué manqué yi nekk sa digganteeg sa soxna manqué manqué yi nekk sa digganteeg sa njaboot manqué manqué yi nekk sa alal manqué manqué yi nekk sa digganteeg say dëkkandoo yonent bi nee na julli moo ci mën dara su la julli rawee nga koj ko ci koor bu la koor rawee nga koj ko ci sarax ñett yi bu ñu la mënul dara pare nga mooy li ñu doon wax sànq rek te xoolal lii foo koy amee ci koor nga koy amee ak sawm tax yàlla jéggal la sa bàkkaar kon weeru koor dëgg-dëgg ñun li waa ji laaj laaj bi ne kay fa naichu ramadan dëgg-dëgg jar na laaj ñaata tomb lañ limagum juróom juróom benn juróom ñaareel asawmu junna ووقاية من النار قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار حديث بابو أحمد مكو صلو الشيخ الباني ويرلنا حديث بي يننتي بي عليه الصلاة والسلام نينا كور بك لا لان موي بك من وقاية من النار موي لولاي آرتي سفرة الله أكبر yonent bi nee na koor pakk la day baare diggante jaam bi ak safara nit day woor ëllëg yowmal qiyaam mu war a dugg safara safara koor ñëw jàpp ci loxo bi daal di koy yóbbu aljanna kon koor pakk la day tere nit dugg safara yonent bi nee na yusta jannu bi hal abdu ci la jaam bi di amee kiiraay ci la jaam bi di amee muslaay weeru koor ñëw jàpp ci loxoom daal di koy musal ci safara juróom-ñetteel ci min xasaa'isu ramadan mooy xulu famu saa'im atyabu inda allahi min riihil misk gémmiñu ko woor dafay génne ay xet dafay soppeeku ndax xiif gi mu xiif mar bi mu mar tuflit yi wow yi nekk ci gémmiñ gi ah xet gi daal di soppeeku waaye gis ngeen xet googu moo gën a neex ci yàlla parfum misk atyabu inda allah min rihil misk ci yow yaa ngi jàpp ne xëy na sax yenn saa yi ngay wax ak ay nit ñu ni nii ndax tàngaay boobu sa biir bi di génne muy jaar ci sa put di génn ci sa gémmiñ tàngaay woowu soppi na xetu gémmiñ gi ba xet gi soppeeku ñépp jàpp ne gémmiñ gi dafay xeeñ waaye ndeke ca yàlla xeet googu moo gën a neex ca yàlla parfum misk loolu fan nga koy amee lu dul ci koor mënoo ko amee ci beneen jaamu yàlla lu dul koor kon loolu benn la encore ci ngëneelu weeru koor sa gémmiñ gi xet gi muy changé ndeke lu neex ci yàlla tabaraka wa taala la ñaata ngoog juróom-ñeenteel tastaghfiru lmalaika lissaimina hatta yuftir allahu akbar yaa ngi woor nekk ci suuf malaaka yi nekk kaw asamaan di la jéggalul yàlla ba heure dog jot ndeysaan yow jaam bu ndaw nga yaa ngi ci kaw suuf yaa ngi woor di jóg di daanu di xiif di góorgóorlu malaaka yi ñu ngi mala ul ala naan yàlla jéggalal diw yàlla jéggalal diw dafa xiif ngir yow yàlla jéggalal diw dafa woor ngir yow yàlla jéggalal diw dafa bàyyi lekk bàyyi naan ngir yow loolu lan moo ko gën a rëy teew yëgoo ci dara malaaka yi di la jéggalul ci yàlla tabaraka wa taala yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fukkeel ci njëriñu weeru koor yuzayinu llahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushaku ibadi salihun an yalqaw anhum lmauna wal aza summa yasiru ilayk allahu akbar nan lañu yàlla dugal aljanna soo wooree ci weeru koor yàlla day taaral aljanna bés bu nekk yuzayinu llahu fi kulli yawmin jannatahu yàlla day taaral aljanna su fekkoon ne nit la ñu ne day taaral kër gi lan lay taarale kër gi mu ngi koy pentiraat mu ngi koy karawaat defaraat meuble yi changer di taaralaat noonu la yàlla di taarale aljanna bis bu nekk xam nga yàlla buy wax ak aljanna lu mu koy wax aljanna yaa ngi nii de sama jaam ñaa ngi ne la di sonn waaye yàgg yàgg yàgg yàgg seen coono googu fii laa leen di indi ñu noppalu allahu akbar wala yaa ngi fii di woor ñu ñu ngi lay préparé ëllëg fi nga war a dugg kon nit ñi xamuñu li ci njëriñu woor loolu moo tax su ko nit ñi xamoon du nekk fii di caaxaan di font ñii di feebar feebarlu ñii di jéem a tukki fi mu nekk li nga gis am ñu daw waaw ñeneen ñi di provoqué ay feebar ñeneen ñi di jébbalu ji pour bañ a woor ñeneen ñi ku nekk di wut empêchement pour lan pour bañ a jaamu yàlla xoole xéewal yi fan lañ ko mën a fan lañ ko amee ci weeru koor kese ci weeru koor kese lañ mën a amee lii kon jullit yi nanu xam ngëneel gi leen yàlla indil ñu bëri ndeysaan dañu jàpp ne koor coono la fi mu nekk nii comme tey xool montre bi ñu ne tey la 27 ñu ne 27 ban calendrier ñu ne calendrier musulman ñu ne chut tut tut kon koor ñaata fan na ci des tey la 27 28 29 kon kon fi mu nekk nii normalement dimanche moom dañoo war a woor ma ne waaw waaw chut tut tut non nga gis gars yi commencé ñuulal kanam commencé ñàng triste. au contraire sax da ngay gis samedi bi fi mu nekk nii samedi da ngay gaa ñu ne dernière soirée dernière soirée waaw yow boo demee léegi ngay mooy yàlla nga dee ci guddi googu looy wax doomu aadama moo gàtt xel dernière soirée waaw tey tey gis naa ay xale yoo xam ne te lim loolu ñeme ma ko wax sax naa noppi ndax loolu su ma ko waxee defet la defet la pour ñuy dund sunna defet defet waaw tey ay xale yuy jàng diine laa gis seen papa ne kilifa gu mag ci réew mi ñu langar langari ne dañuy dem sorti tey tey tey man xaw ma woon sax benn waaye ma ma ne ñii doomu diw lañ dama tiit moo tax ñu war a góorgóorlu suñu njaboot mbokk yi nañ leen góorgóorlu suñu njaboot nañ góorgóorlu suñu njaboot ndeke doomu aadamaa ngi fii di sonn yàlla di ko taaralal aljanna naan yàgg yàgg yàgg sama jaam yu baax yi danañ dugg fii danañ sonn nag danañ xiif danañ mar danañ jànkonte ak bépp lor waaye summa yasiru ilayka waaye yow aljanna yow mii sama jaam ñi ci yow la ñuy mujje fukkeel ak benn ci xasaa'isu ramadan wa huwa sahru sabr weeru muñ la weer wu nit di jànge muñ la muñ weeru koor lan moo tax mu nekk weeru muñ muñ bañ a lekk lekk rek ngay muñ bànneex bànneex rek ngay muñ doo naan doo xool lu bon doo wax lu bon doo dem fu bon doo laal lu bon doo déglu lu bon xool yooyu yëpp nga muñ ko fi mu nekk nii boo wooroon benn xale bu jigéen ñëw naa la moo di yow moo looy koy wax eh dimbali ma de seytaane bi nga tàmm ngeen ko jaamu ya gis nga nga commencé léegi di ko kereyal mais bu dul weeru koor seytaane mën na la jàpp mu naan la waaye yow nga toog rek naa ne ah mu lay tàpp rek nga toog di xaqataay rek mais bu dee weeru koor da ngay muñ day xeex ak sa bakkan ay waa noonu nga muñee yooyu nag lañ bëgg bu weeru koor jeexee nga continuer ko xoolal ki nga xam ne dafa dugg ci biir néegam moom kenn ak yàlla firgo baa ngi nii lépp a ngi ci mun naa naan ba biiram fees mu fomp gémmiñam génn te naan waaw waaw ban heure a jot koor gi moom fekk woorul mais xoolal loolu yëpp du la ci fekk doo tricher lu bon lu ne mën nga koo def waaye nga bañ ngir yàlla nangul la nga bañ sa koor yàqu moo tax weeru koor weeru muñ la doomu ndey yi weer wu ñuy jànge muñ la borom bi tabaraka wa taala wax ci alquran innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri xisaab yàlla tabaraka wa taala dina matal muñkat yi seen fay yowmal qiyaam kon képp kuy muñ sa fay borom bi tabaraka wa taala dina la ko jox yowmal qiyaam kon muñal sa sa muñ du du neen fukkeel ak ñaar fiihi tusfadu shayatin wa tuftahu fiihi abwaabu aljanna wa tuxlaqu abwaab annaar qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida daxala ramadan futihat abwaabu aljanna wa gulliqat abwaabu jahannam wa sulsilati shayatin hadis bi mbokk bi buxaari ak muslim solo nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci weeru koor bokk na ci ngëneeli ci la ñuy yeew seytaane tënk ko ba mu ne kaj mu ne ñu ubbi bunti aljanna yi ñu tëj bunti safara wala ñett yi ci weeru koor lañ koy am li ñuy njëkk am ci weeru koor mooy dañuy yeew seytaane ndeysaan seytaane li muy garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw weeru koor dañ koy yeew moo tax gis nga nit ñi ni ñuy amee ni ñuy noppaloo mën a jaamu yàlla ndeysaan dañuy gis benn waay boo xam ne daawul julli seytaane ko jàppoon daawul julli comme léegi yeew nañ seytaane nga gis ko fajar gis ngeen jàkka yi ni muy feese yéen ñi dem jàkk temps yi seen leen bu weeru koor ñi xam ngeen fu ngeen di jullee dernière sàppe ndax association xëdd ñooy ñëw occupé sàppe yi association xëdd ñi nga xam ne xëdd leen yóbbu yàq waaye gis nga weeru koor gi buy dem ndeysaan dafa mel ne weer yi buy fenk weer yi buy génn day génn daal di sew tuuti waaye su weer bi di dem muy muy ngande ñun nag fii weer yi bu commencé jàkka yi fees weer yi buy dem jàkka yi di ngeer jàkka yi di jeex di jeex di jeex ba dernier jour bu ñu naan suba la julli ilimaan kese mooy julli gee ilimaan ak bilaal ñoom ñaar ñooy nekk ci jàkk ji ana gaay yi ñu ngi préparé fête bi fajar ga nag moom doo gis kenn allahu akbar yeneen bi nee na dañuy yeew seytaane sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu ubbi bunti aljanna yi ñu tëj bunti safara mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne hadis boobu al imaamu buxaari ak imaamu muslim ñoo ñu ko nettali bokk na ci ngëneelu weeru koor fukkeel ak ñeent yuxfaru lissaa'imiina fi aaxiri layla min ramadan allahu akbar mbokk yi ci weeru koor bokk na ci ngëneel yi ci la yàlla di jéggal ci guddi gu mujj gi ñëpp ñu wooroon yàlla da leen di jéggal allahu akbar kan moo bëgg yàlla jéggal ko ana ñu allahu akbar ñi wooroon ci guddi gu mujj gi ñoom ñëpp yàlla da leen di jéggal xoolal ngëneeli weeru koor ni mu bare fukkeel ak juróom ci ngëneeli weeru koor lillahi utqa minan naar yàlla day goreel day libéré wa zalika kullu layla min ramadan guddi gu nekk borom bi dana génn ci safara ay nit ñoo xam ne da leen di goreel guddi weeru koor gu nekk misaal bu ndaw bu fekkoon ne guddi gu nekk mu génne téeméer guddi gu nekk mu génne téeméer guddi gu nekk mu génne téeméer ba weeru koor jeex ñaata la génne ah ah ñetti junni la génne guddi gu nekk téeméer misaal laa joxe guddi gu nekk téeméeri nit guddi gu nekk téeméeri nit ba weeru koor gi jeex ñaata lañ ah ñetti junni léegi ñetti junni yooyu mu multiplier ko par 30 daal di génne lu toll noonu ñaata la allahu akbar te loolu laa joxe misaal misaal laa joxe rek maanaam moom yàlla tabaraka wa taala ci xam-xamam ak kattanam li muy baal ci guddi googu guddi gu nekk li muy baal su weer wi jeexee day multiplier loolu daal di ci weer wi daal di koy gé- daal di koy génne biir safara loolu fan lañ ko amee ci weeru koor ci ay ngëneelam bokk na ci ngëneelu weeru koor fukkeel ak juróom benn li saaimi daawatun mustajab laa turad qaala sallallahu alayhi wa sallam salaasun daawat laa turad daawatu lwalid wa daawatu soim wa daawatu lmusafir rawahu bayhaqi mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci ngëneelu weeru koor mooy ki woor garantil nañ ko assureel nañ ko ñaan boo xam ne kenn du ko delloo bu ñaanee yàlla daf koy may yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñetti ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo ñetti ñaan ñaanu way jur ñaanu way jur ñaanu ku woor ak ñaanu ku tukki ñetti ñaan yi yàlla du ko delloo ñaanu wayjur sa wayjur bu góor wala bu jigéen lum la ñaanal lu baax wala lu bon yàlla du ko delloo kon bu yeboo bu nga fexe buñ lay ñaanal ñu ñaanal la lu baax ndeysaan gis ngeen hadis ba ca weeru koor yonte bi muy wax amin amin lan la wax benn waaye ngi nii boo xam ne du texe du dugg aljanna lu ko waral ndeyam ak baayam dañuy dund te fexewul ba am ci ñoom aljanna kon weeru koor am na ci ngëneelam yow say ñaan yow mi woor yàlla du ko delloo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax fa yaa axil karim sahrun haadihi xasaa'isuhu wa fadaa'iluhu bi ay sayin nastaqbiluhu yow sama mbokkum julit weer woo xam ne lii mooy ay màndargaam lii mooy ay xéewalam lii mooy ay ngëneelam yu ci nekk kon naka lañ ko war a gàttandoo ndax ci caaxaan lañ ko war a gàttandoo instant yi ñu nekk sénégalais yi dañuy profité di dem sorti di da ngay gis koo xam ne nañ nañ fo li ñu war a fo ndax weeri koor a ngi ñëw lu nu mën a fo nanu def lu bon li nu war a def mooy dëgg-dëgg ñun xamuñu li ñu am xamuñu ngëneel yu ñu yàlla indil dernière sortie dernière soirée dernière daje dernière balaa ñuy woor ñu léegi ni kuy wax di def lu bon danga naan gaawal balaa ñuy woor gaawal kon yàlla defal sutura yàlla bu nu yàlla boole ci melokaan yooyu ak nit ñooñu ixwatal iman ndax dañ koy teeroo ci caaxaan ak veillé ci yu bon ak continuer ci sàggan te mu ngi ni jege muy diis ci ñun mel ne lu nuy sonal du ñu kontaan ci jege gi mu jege du ñu góorgóorlu ci ay bëccëgam ak ay guddeem naka lañ koy teeroo fal abdu salih jaam bu baax yastaqbiluhu bi tawbatin nasuux day teeru weeru koor ci tuub tuub bu sell wal azim sadiq mu dogu dogu gu dëggu ala igtinaamihi ci profito ci weeru koor wa amaarati awqaati bi amali saliha mu góorgóorlu profito ci dundal ay waxtu yi ci jaamu yàlla ci xeetu jaamu yàlla yu baax yi ngalla mbokk yi nanu teeru weeru koor ci tuub nanu tuub suñuy bakkaar amul kenn ci ñun rek lu dul da ngaa yenu ba fees del ku mu mën a doon nag kaa inun man kaan fi may wax ak yéen ku ngeen xalaat amul bakkaar rek daa yenu ba fees del del del ak ku seen xel dem rek kooku dafa am bakkaar ku sa xel dem waaw ku seen xel dem rek dafa yenu ba fees del laa wax kooku li ko war nag mooy mu tuub ñun ñëpp li ñu war mooy nu tuub waaw loolu waxuma ko de am naa kii na am na ñu naan waaw kii daal moo dëgër fit rek diw di xalaat ci xelam diw kooku amul bàkkaar ma ne kooku ay camion la yor waaw yonent bi ko wax de kulli ibnu aadama xatta wa xayrul xattaain tawaabuun man waxuma ko yonent bi ko wax yonent bi ne koo gis koo xalaat bu dee doomu aadama la rek yonent bi ne bàkkaarkat la waaw bàkkaarkat la yonent bi nee na ñi gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy ñiy tuub xam ngeen ibnu masud la lan doon wax ñi mu doon àndal ibnu masud xam ngeen kan mooy ibnu masud kan moo xam ci yéen ibnu masud xam nga ibnu masud mooy kan abdullah ibnu masud waaw bismillah mooy kan ndeysaan allahu akbar wax nga dëgg de moom moo doon jàng arrahman alquran wàcc yonent bi ne benn saara ngi nii de mu ne indi ma dem joxi ko yéeféeri ñu dégg ko mu ñëw di jàng alquran suratu rahman abu jahlin daal di dagg nopp yi xale bi wax na dëgg de kii jox leen ko kadowaay joxu leen ko kon xaaral ma jox ko xaaral ma jox ko kado am kado ngi nii waaw allahu akbar waaw waaw kooku mooy ibnu mas'ud mooy ki ñu daggoon noppam ndax alquran ki ñu daggoon noppam ndax alquran kooku mooy abdullah ibnu mas'ud dagg nopp yi ndax quran ndeysaan xoolal abdullah ibnu mas'ud mi nee na su ngeen xamoon samay bàkkaar di ngeen ma sànni ay xeer ba ma dee law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaar xatta al mawt allahu akbar abdullah ibnu masud bu xalaatee ne moom dafa am bàkkaar ne nit ñi bu ñu xamoon ay bàkkaaram danañ ko dóor ay xeer ba mu dee kon ñun fu ñu jëm fekk ibnu masud mooy xalaat ne moom dafa am bàkkaar abdullah ibnu masud yéeg na ci garabu tàndarma di aji tàndarma saxaaba yi gis yeel yi yeel yi dafa sewoon saxaaba yi ree dan xool leen yeel yi yenent bi ne leen giñ naa ci màggaayu yàlla ñaari tànkam yi ñoo ëpp monta ñoo ëpp montagne Uhud ca yàlla daraja ñaari tànkam yi ñoo ëpp daraja ca yàlla montagne Uhud kooku mooy xalaat ne moom daa am bàkkaar moo koy xalaat yemul ci xalaat ne moom dafa am bàkkaar mu ne bu ngeen xamoon samay bàkkaar di ngeen ma sànni ay xeer ba ma dee ndax sama bàkkaar yu bari kon ñun fu ñu jëm léegi nag Sénégal moom li garaaw mooy am na ñoo xam ne duñu am bàkkaar dañu ne kooku moom lu ko neex def benn waaye mu ne ma barki démb dama doon jaay ay cuub ci cuubkat yi nekk fii la bokk mu ne ma dama doon jaay ay cuub ma dem benn dëkk mu ne année bu nekk dama daan dem foofu ñu may dalal mu ne ma ñëw rek teggi samay teggi samay tisi commencé lal sama njaatige bu jigéen bi am na lu ma doon wax ak moom rek ci nu may tooñee ci diggante aawa ñaareel yeeg ñetteel yeeg ñeenteel ñi xanaa yow góoru benn jabar nga xanaa yow góoru ñaari jabar nga yow xanaa ah yow xanaa nangam nangam ma ne ko waa yow yow ñaata nga sax yow yow mu ne ma cinquante-neuvième mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun cinquante-neuvième jabar mu ne ko waa lu ci nekk mu ne ko loolu araam na mu ne ko bul wax loolu ñooñu duñu am bàkkaar rek kooku nee na ma daal di gedd jël samay bagage dem ma ni kër gi kay dootuma fi duggati cinquante-neuvième mu jabar mu ne may wax ndaw si loolu baaxul mu ne ma tuub noppil ñooñu duñu am bàkkaar lu leen neex def ñooñu duñu am bàkkaar loolu fan la ñu bind ci islam man moom nag la ilaha illa doy na waar ba ñee ñee moom du ñu am baax loolu de la ko tontu mu ne ko mu ne ko kooku di ko wax tuubal loolu baaxul mu ne ko noppil ñooñu duñu am bàkkaar ndeysaan xoolal Sénégal foofu lañ toll ay nit yi dul am bàkkaar yonent bi nee na yàlla sax moo ko wax tabaraka wa taala wa man yaxfiru zunuba illa allah ana kuy bale bàkkaar ku dul yàlla yàlla rek mooy bale bàkkaar bàkkaar ñëpp ko am aadama mooy sunu maam wala am na bàkkaar wala amul bàkkaar am na hmm? am na allahu akbar nu am na wala amul ulul azim mina rusul am nañu am nañu ay bakkaar kon ñun nag ulul azmi laa ulul azmi mina rusul yal nañu yàlla jubal la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon ab jaam bu baax yastaqbiluhu bit tawbati nusuh na teeru weeru koor ci tub bu sell waaye na dogu dogu gu dëgg ci jéem a profitoo ci bëccëg yi jéem a dundal waxtu yi ci jëf ju baax fa ilayka axil karim baadu amal allati tataakkadu fi ramadan ñoo ngi lay dénk yow sama mbokkum julit ay jëf yu nga xam ne bokk nañ bëgg nañ nit di ko feddali di ko dëgëral ci ay guddi ak ay bëccëgu weeru koor lu njëkk mooy ñu xam ne as-sawm woor yenent bi nee na kullu amal ibnu aadama lahu alxasanatu bi asari amsaaliha ila sabu miati def yaqulu llahu aza wa jal illa illa siyam fa innahu lii wa ana ajzi bi yatruku shahwata wa taama wa sharaba min ajli li saimi farahatan farahatun inda fitre wa farahatun inda liqaai rabbihi wala xulufu famu saim atyabu inda allahi min rihil misk hadis boobu axrajahu buxaari wa muslim mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na kullu amal ibnu aadama la doomu aadama lépp lu mu def moom moo ko moom lépp loo def rek sa bopp nga ko jëfal mu ne alxasanatu bi asari am saaliha benn baax bu benn bu baax boo def fukk lañ lay fay waaye ila sabu miati diif dañ la koy dubleel di la ko dubleel ba mu nekk juróom-ñaar fukki yoon bu dee weeru koor dinañ la dubleel benn bi nga def nii ba mu nekk juróom-ñaar fukki tiyaaba benn julli boo julli farata ñu yóbbu ko juróom-ñaar fukk mu ne borom bi tabaraka wa taala nee na ba mu des koor koor yàlla nee na maa ko moom maa koy fayal sama bopp nee na ndax jaam bi dafa bàyyi lekk bàyyi ay bànneexam bàyyi naan ngir man yàlla tabarak min ajli ngir man lu tax nga bàyyi lekk yàlla lu tax nga bàyyi naan yàlla lu tax nga bàyyi say bànneex yàlla mu ne ku woor bay dog am na ñaari kontante ñaari mbégte sooy dog am nga kontante boo dajeeg sa borom di nga kontaan loolu da nga koy xool sax ndeysaan gis nga boo wooree ba ngoon ba dara desul rek nee nañ doj dog jot na ci Dakar ak li ko wër nga jël tàndarma looy def da ngay jooy wala da ngay muuñ kañ ngeen mës a gis ku woor ba ngoon jël tàndarma bi di jooy wax leen ma turam da ngay muuñ kontaan wala kay tàndarma bi ba pare nga naan ndox nga julli timis ba pare nag ñu ne bismillah bi kontaan allahu akbar loolu yonent bi moo ko wax mu ne li saa imi faraxataan ku woor bay dog day kontaan waaye mu ne ëllëg kontaante bi réy bi ngay gën a am mooy boo dajee ak sa borom mu lay fay kon mbokk yi weer waa ngoogu sunu kanam ñu ñaan yàlla yàlla may na nu fekke ko ñu ñaan yàlla buñ ko wooree yàlla nangul nu ko ñu ñaan yàlla mu barkeelal nu ko yàlla may nu wér ak tal ba ñu mën a taxawee bépp jaamu yàlla bu ci yàlla santaane yàlla tabaraka wa taala dimbali nu ba nu mën a màng yiw yi ci nekk incha allah loolu moo doon dars tey pour ñu mën a préparer ramadan préparer ko woor waaye préparer ko xiyaam mooy taxaw julli waaye préparer ko sarax loolu ay mbir la yoo xam ne ab jullit daf ko war a préparer ci weeru koor waaye préparer ci aussi ci jàng alquran lu baree baree bari préparer ci lépp lu ñu wax itikaaf bari lu muy toog ci jàkk itikaaf bu la yàlla dimbalee aussi yàlla dénk la nga am am am boo ci mënee dem umra yooyu juróom-ñaar la yoo xamante ne bëgg nañ ab jullit def ko ci weeru koor mooy woor moo ci jiitu ñaareel bi xiyaam taxaw dinaa fi la ñetteel bi mooy saraxe ñeenteel bi mooy nga góorgóorlu ci jàng alxuraan lu baree bari juróomeel mooy nga bëri looy toog ci jàkk juróom-benneel mooy nga def itikaaf fukki fan yu mujj nga dëkk ci jàkk ji juróom-ñaareel mooy boo mënee dem umra nga dem umra loolu mooy ay mbir yi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dimbali ñu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fekkee am na ku ci am laaj bismillah